mbokk yi asalaamaaleykum alxaaji Mbengue Diop ak Mame ndox TV mbokk nak nag tey dañoo ñëw ngir waxtaan ak yéen waaye nag di wax ñëpp rek nañu abonné ci Ndokh TV waaye dem ci YouTube bi abonné tamit ci YouTube bu ñu bëggee ndox TV avancé waaye mbokk yi bii ñu ngi yemoon keroog. ci Moussa Boury Digane code ba ko demel Samba Laobé defalee teraanga tamu dem ni soxna yi firiku bu ñu demee suube maag sang fas wi ñu naan yaaram sunu bakkan rek la ñuy fay demel Samba Laobé duñ del su nun dañuy dee waaye boobu nag mu nga ànd benn géwélam bu ñuy wax daa kumbe dëcc ca gétti mbokk yi boobu demel Samba Laobé mu ngi tekki sugeer ñu fekk fa benn ardo bu yërëb jët ñu naan ko ci lu nu reere mu làgg ñu fital ca fanweeri nag toj yàpp yu fees ko dagg buntub guy tëralal ci cóob yi damel sambalaw farang yi wër ko bu ne rek di wax bu subaa bu ñu demee gille nga war a taxawee demal sambaloobe ca xeex ba mbokk mu wax bay bayal maalaw la déggum ni moo njëkk a xeej ba mu ni ko naam mu ne ko geñe gi la fas fas gelo gi la fas fas ma bu subaa bu ñu demee gillee mu ne ko faal mu ne ko dinaa la fitalal ab garmi ba dàkkum ndaamam gi ci dënn bi fekk gog ko dekk ci ginnaaw gi dàkkum ndaam nag boo ko dekkee mooy téere bi mbër mi di takk fii ci dënnam bi gog ko de mooy téere bi nekk ci ginnaaw mu ne ko daal mu ne ko faal mu ne ko la fitalal ab garmi ba weñ dal si bëtam te deesu ko mën a dàq ni ko sans fas bu rëy wii nag deegu pooj laa ko tudde xam ja du ko naan xamul ja rek ko koy naan ñu way bay baala ma la kon ngay mu dem toog ci coog yi lat ngeen de Fatma Binta gaynde ak njaloor go ca sa sa sago ñëw samp xeej ba ñu way ko ba wewe sax mu ne demal sambaloo bi mu ne ko naa mu ne ko man la lat ngeen de Fatma Binta gaynde ak njaloor go ca masa sago mu ne ko bu subaa daal dinaa la fi dalal alburi ba mu génn jolof nga toppum ndax ni ko sama fas wu rëy gudd bii nag joore waay laa ko tudde bu mu la wàcc say bu mu la wàcc say sagar ko bu subaa daal bi nga xam ni maag yow ñoo bokk ndey ñu way la njënd fan mu bint mu dem toog ci cóog wullu saala borom gëw di samp xeej bi taxaw ñu way ko ma yooyo sax mu dama sàmba loobe mu ni ko naam mu ko man la wullu saala borom gëw di man maa tee naye nan gallaar damel sàmba loobe mu ni ko naam mu ko bu subaa daal bu ñu demee gille mu ko am ah mu ko di nga xam ne lu baay jur maa ci gën a ñeme bu subaa daal mu ko am ah mu ko koo gis ñu jam ko fital koo gis rek lu tubay tuuru ca ginnaaw xamal ni maa ko sama xeej bi ñuy wax am jokk bu subaa daal di nga xam ni man mii daal maay wul du saala borom gëw gi sans fas wuréy wu wii nag ñu ne ko ah, mu ni dëkk ju yàgg laa ko tuddee moo ko xam lee mu gis leen la lu way wul du saala borom gëw mu dem toog ci coow yi Malicoumba Diarry yegg si ñu way ko Malicoumba Diarry yee yee mu ni kenn mayu ma bawol damaa rey seen i góor jàpp seen jigéen ñu ni ñu kaanu fan la waxee woon nu kon nii damel sàmbaloobe mu ni ko naam mu ni ko bu subaa daal di nga xam ni geño gi la fas fas ma bu dinaa la fitalal ab garmi ba dàkkum ndaamam gi ci dënn bi fekk gokkode gi ci ginnaaw gi damel sàmbaloobe mu ni ko mu ne bu daal di nga xam ni alburi dina xam ni maali kumba jaari nga àndal mi nga xamante ni moom la ñu moyoon bawal waaye daal sans fas wuré yu mu ne ah mu ni ko xur xëbulum mbëkk laa ko tuddee saful waxambaanam gaynde ñu way Malick Coumba mu dem toog coog yi birima ba ba way wa sax mu ni ma man la birima may sa tendu joor man la birima la joxu borom mbaar fa jigéen ku sàcc buj wa daw coow damel sàmbaloo ba mu ni ko naa mun ko bu subaa daal dinaa la fitalal ak garmi ba mbooleem ku nekk ca xare ba ca gille dina xam ne man maay birima may sa du joor ñu way birima mu dem lal mu dem toog ci coog yi ñu waaye lan lax lan yax rek bu ñëw toog damel sambalo mu ni ko naam mu ni ko man la lan yax rek borom buy lokki damel sambalo bi mu ni ko naam mu ni ko bu subaa daal mu ni ko naam mu ni ko lépp loo gis muy xonk xamal ni ku ko takk mën a ndax sans fos bi man ku tudde jabootu loobe deesu ko nit guddi ñu way lat yax rak borom bay lokki mu dem toog ci coob yi saam xaali yegg si ñu way ko ba woyee sax damel samba roo bi mu ni ko mu ni ko man la sam xaali ndummaan mi ci gi ci looro damel samba loobe mu ni ko naam bu subaa boo gis pital ray ko xamal ne du man waaye koo gis lu tubay nàcc ca ginnaaw xamal ne maa ko jam sama xeej bi ñuy wax am jog damel samba loobe mu ni ko naam mu ni ko sans bés wuré yu gudd wii nag mu ni ah ko paxum jaan laa ko tuddee paxum jaan nag am na lu ci Kajoor ak Bawol wax mu ni ko lu mu wax mu ni nee ne dee ko yër rek waaye bu ci rob sam loxo mbokk yi alxaaji ak Mame Ndokh TV foofu la ñu yem ak yéen ba émission bii di ñëw ñu indi leen yeneen garmi keroog bu ñu sampee xëy lan lay wax ak damel sambolo bi alxaaji mbégi ak mam ndok ñu bi jërë ngeen jëf